Salut les amis de eSport TV et de Babo Show. Merci encore gars, de la confiance dans le volet. Merci de des like, merci de des abonnés, merci également de baisser les commentaires. Un plaisir au nouveau chaque fois de partager des informations inbox sénégalais fait pour la maintenir 14 régions du Sénégal. ruq-ruqaat yi ah gox ngi également ci est à l'hôpital. ci qui est tëdd février. Nous na suñu borom fëgg seen un bon numéro de ñu nekk ci kaso yi ngeen xam ne aussi erreur judiciaire gi ñu ne ñu defu moo leen fa yóbbu suñu borom génne leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñu dédowa dono suñu borom xale leen daajale fi daw si yi xëy ñu on avance ensemble dans la magie de Baba Show et des Sport TV actualité bi tamit di Sadio Mané bi nga xam ne nag moom semaine bii nii nag la agent la ñu wax ne la war a dajeeg ñi xam ne donc dirigeant yi wa Al Nassr ndax Beşiktaş ñu ngi insister te Al Nassr également euh, dafa am ay information am dañ leen koy indil der lañ ci indi ay leeral ci li nga xam mooy donc vidéo bi mais en attendant di leen wax aussi gars yi ngeen dem ci li nga xam mooy donc e sport TV seetaan vidéo bi nga xam nag mooy donc jëm si lépp luy kaaw Michael Ngo Mbour Faye ak situation am donc fas yéene ci jox leen ay détails nee naa leen fii dañu koy topp ba mu sës entre guillemets jox leen lépp loo xam ne rek day indi. les ci sujet bi invité aussi ngeen dem ci nga donc page Instagram bu donc sport Inter daal fay en masse et également TikTok bi pour jot information en temps et en heure et que fait plus tard dinañ tambalé nouvelle version nga xam TikTok bi pour mën le permettre ngeen jot ay détails aussi gën a yaatal wax rek sport bi ki nga xam ne Diaz Maroc ah, donc ko mais Real plutôt ñoo lank. dem Jeux olympiques Maroc dañ ko donc euh, mon du ci li nga xam compétition bu fekkene waxtan bi euh, fi lay yam euh, comme j'ai dit donc Mikayil Ngor Fay nak gars yi ah, actualité bi dama len fële parce que wax ji bëri na situation bi nak dañ ci delu ça évolue tay nak la ndaje waroon a am euh, wa Porto daal ñoom ñu ngi insisté pour recruter joueur bi parce que profil bo xam dañ ko soxlo wa wa Barça aussi xam nañu boy bi dafa am talent moo tax bëgguñu ko bàyyi mu dem Fermin Lopez nak mom nak li mu wax leer né mom bu sañoon day prolonger contrat am ak waa Barça ci lolu nek di do parce que Barça kërëm la et tout il veut évoluer encore et encore ay ati sur les couleurs du club Blao euh, Grana ki nga également Lamine Yamal bokku na ci le jeune plus jeune joueur bu jouer li nga xamné nak coupe d'Europe euh, ku ci top nak moy Kozlowski ak Bellingham ah, Williams Sifo Musiala euh, Bozinoy ak Bozinov plutôt ak Van Lanten Pedri mi ci également ak Marcus Rashford Cristiano Ronaldo qui est actuellement le meilleur buteur de l'histoire de l'Euro avec ses 14 buts Michel Platini Top ci ki nga Alan Shearer Alvaro Morata ak Antoine Griezmann with you. ginaawam Cristiano Ronaldo bi nga xam nag il peut même les dépasser encore plus Cristiano Ronaldo image bi nekk doo yaram mooy que ne fii entraînement la woon mais ay buissons maanaam ay garab yu bëri ñoo fi nekkoon am nag ay supporters yu déplacé bu ko gis Cristiano Ronaldo jógee ci terrain d' entraînement bi jaar fi nga xam nag moo ci biir garab yi ngir mën a ñëw photo ak ñoom pour ne également humilité bi nga xam ne joueur bi mi ngi koy def loolu tax gars yi comme on dit même bu fekkee ne nekkul sa joueur sax par rapport ak geste yi muy def mooy tax nga daal di ko gën a naw kii di Cristiano Ronaldo donc le capitaine de la Seleção portugaise ni ngeen ko mën a gisee ci image yi nii kii nag également aussi nga xam ne mooy donc euh, kii di Euh, numutati Serhou Girassi donc l'attaquant guinéen moom fi ne nag famille sax ñi ngi wax ne moom daal mi ngi gën a à 95% vingt dem du côté du Borussia Dortmund nga xamné nak mom clause libératoire am 17,5 euh, millions la ki nak Victor Osimhen le phénomène de la Série A mom dal gi ni day jugee du côté de Napoli loolu la bëgg légui nak choix bi entre l'Angleterre ak ñi nga xam donc Paris Saint-Germain mi daal di insister mais moom daal sa préférence selon yéen Gay, moy mooy que dem du côté du club donc du Parc des Princes loolu dal Gay. gars yi ci ki nga nous donc Victor Osimhen le phénomène de la Syrie A qui avons donc Vincent Aboubakar avec Jean Onana Nyomita donc ñi donc Beşiktaş de Fobuga séparé au Apnium Darlendi à leen euh, parce que joueurs yi monde comme je dis ils ne sont plus en odeur de sainteté faut finir avec Nicolas Jackson nag gis ngeen ko du côté euh, de la de Ziguinchor de la Casamance pour daal di passé vacances mais gis ngeen ko moom ak ay xaritam di daal la di wane le jour international euh, sénégalais bi nga xam ne gis ngeen def ay saako ko ci diwlin nag suukar yooyu mu fa daal Mané. ni le féetee tabaski bi ah, ak sañse bi ni ah, ñaanco mi nga xam ne donc il est actuellement en vacances au Sénégal nek nak di teg ay projet mais aussi du profito ci nga xam nak moy donc la vie sénégalaise justement mon la ñuy wax ci waxam moom mi nga xam ne nag gars yi fi mu ne nii waa Fenerbahçe ñoom ñooy insister selon les informations également ñi di wa ils sont ouverts au départ de Nyanjo maintenant qui dit di euh, donc José Mourinho qui insisté pour recruter l'attaquant sénégalais discussion il y a na am ci semaine bi déjà dirigeant le club pour xool nak lan moy euh, possibilité ak aussi ñu mën a walé agent Sadio Mané bi nga xam nak mom moy représenter joueuram ci taxaway bu xam nak mom la ñëpp di xaar Sadio Mané bi nga xam ne moom il rêve encore de jouer la Ligue des Champions gars yi lii nag moo nekkoon information yi ñu leen bëggoon jox ha hein. toujours un plaisir de vous servir leen wax ngeen woy like woy di abonné dem ci chaîne bi di Baba Sow euh, ak également sportif yi abonné fi xool actualité yi jaa di agent nak nag ah, war dajek wa waa Barça ak aussi wa euh, ñi nga xam mooy donc dirigeant yi pour wax ko nak la proposition bi le Porto tek ci table bi xol nak mais Barça li mo wax rek moom seen condition daal mooy que ne boy bi nañ am clause de rachat bi parce que comme ko joxuñu ko temps de jeu Porto nak mom offre bu graw proposition bu graw salaire le lay préparé Michael Gour Faye gay li mo moo information yi ñu leen jox toujours plaisir de vous servir bu leen ko faté on se donne rendez-vous léegi léegi léegi sur Baba Show pour le cas de Sadio Mané également c'est autre chose mais wéy leen di like wéy abonné jaa jëf